bismillaahi ma way fi maam jaara borom poroxaan bismillaahi ma maam jaara borom poroxaan bismillaahi ma way fi borom poroxaan bismillaahi ma way fi sëriñ Moustapha Basiiru borom Poroxaan ma way sëriñ Muntaxa borom Poroxaan bismillaahi baat ma way ngeen gi musinaat tagg jaara moo ngeen naat duma deñ di ko yeesal soxna jaara moo jara way soxna jaara moo jara roy doom ja bamba moo jara ngoy bañ a sellal marta baam dulu nëbbu moo di jaara moom rëbbut maami soxna mbengaabu yàlla moo ñu ko tànnal am na baax taam yéene am na ngoro taam diine maam jaara jar na waxtaane royukaay la bu ñu feeñal leeri jaara daa jolli buur da koy gën dolli am nga ndam maam bu sa xeewal leeri jaara daa jolli buur da koy gën dolli am nga ndam maam bu sa baali liggéey nga liggéeyaale ñu añ nga ba añaale ñu aw nga ba awaale ñu yoonu aljanay xeewal adduna gi biiram ñépp a bekk jaar-jaaram yaay mbusoobe yaay maaram way ko te di ko ñaanal yàlla dolli ay leeram te gën a weer weeram te gën reyal biiram ba mu weesu foogul woon boo xamoonuk jàllalaam xam ne yonee nay maamam maam jaara moo yaaram jikko yaa ñu koy tegtal góor la góor la te gar xam yàlla yàlla gee bur yàlla fay la rekk fi am màggal magu jaare ñépp la may doom ja ñépp bir am xadimu doy na ci jéeri bi ñépp a koy gànjar taxul mu am bayre libidoor ak i njeeri xër ga moom la daa soore njël kenn du ne suurma soxna jaara saa yuy wal kurgu dal di waa soqiwal soqiwal di ko sargal ñay wa doom jalay xàllal soxna jaara moo jara takk tëgg dëkkaale buuram doom jaa mooy may nooru nooru daaray ni xeewal maam soo moo jara wayal way ko yomb naa yombu leen ay teggeen moo di yóbbul ci ku jóg di ko tàggale boole naa yi wax xam-xam moo waral mu bari ay ndam gaynde ab du ko jam ndam la jaara mooy ki ko jël boole naa yiw xam-xam moo waral mu bari ay ndam gaynde ab du ko jam ndam la jaara mooy ki ko jël mas ne yaakaar naa man am kiira mu waa saman dem ne géeyali raxmaan dellu si màggal mbër mu yàkkatib loxoom taxawal diine islaam àndul lu dul xalimaam yéeg ca kaw tundu jeewal mbër mu yàkkatib loxoom taxawal diine islaam àndulaak lu dul xalimaam yëg ja kaw tundu jeewal soxna jaara sa doom ji yeesalaat na diine ji tax na ñépp a ngi aji di julli ak salmal soxna jaara sa doom ji yeesalaat na diine ji tax na ñépp ngi aje di julli ak salmal soxna jaara sa njimmi tase naa ngeen gi waame tooy naa ba weesu daw me ku jiwu lay góobal ceeboo weddi ko tax doo fi bayloo am gàncax dégg gis dootu li naax bàmba lépp lay leeral soxna jaara ak njukkalam xalima munu lim géej bàjj ba moom la mu lam moo ëpp la mu feeñal yëgal na géej xamulam njool doy na ca taxaw di ko bala nga am xaritu mool mu yetti indi ndawale di mool ba manum ndox wàcci gaal jogi cay dox kàbbar ñu soxay sox bàyyi baylaat borom belal bamba di mool ba manum ndox wàcci gaal joggi jay dox gàbbar ñu soxay soox bàyyi baylaat borom belal bamba di mool ba manum ndox wàcci gaal joggi jay dox gàbbar ñu soxay soox bàyyi baylaat borom belal soxi sooxe faares ares beeru yaa waaris buur ba wàcce faa xoreesin alxuraan leen semmal nee ma maryaama jaara nga cengalaama lu baax ci sa dooma ay seexam dañuy seexal nee ma maryaama jaara nga cengalaama lu baax ci sa ay seexam dañuy seexale nee ma soxna Mariama jaara nga jàngalaama lu fi baax ci sa dooma ay seexam dañuy seexale nee ma soxna Mariama jaara nga jàngalaama lu fi baax ci sa dooma ay seexam dañuy seexale